waaye doon na rafet monsieur le ministre des affaires étrangères bu ñuy waxtaan ak yow ci soxlaay Sénégal extérieur ministre bi nga xam moom lañ ko dénk dafa waroon a toog malheureusement ñëwul xamul tax ñëwul mais loolu bon bokk na si lu tax mooy manque de respect Sénégal de l'extérieur parce que tey ministre Sénégal extérieur malgré que yor affaires étrangères mais afam kuñ ko jëddi spécial kooku gisuñu ko waroon na mën a ñëw ci li nga xamante ne mooy soxlaay askan mi nga xam moom ñuy wax pour mën see wax ay ay jéem ñaar yu monsieur le bu fekkee da ngeen am politique boo xamante ni bu baax la jëm ci Sénégal ak Sénégal affaire français man jàpp naa ni tey boo jëlee tey le programme programme bi nga xamante ni mooy programme numéro 3 promotion euh, diplômée euh, économique y a montant cent cinquante et un millions su man loolu def tuuti parce que li nga xam mooy promotion diplôme économique kooku yaakaar naa ne mooy banqaas bi nga a gën a investir pour que léegi xaalis mën a ñu mën a am xaalis foofu dugal fa xaalis bari pour que ngeen mën a defar euh, li nga moom mooy économie ak diplomatie boo jëlee programme numéro 4 section affaires consulaires la promotion Sénégal l'extérieur tey mënu ma nangu tey Sénégal l'extérieur dugal milliards francs CFA nga xamante ni maanaam mooy nekk service consulaire loolu jaaruwul bis boo xamante ni ngi nekk ci 76 milliards francs CFA monsieur le ministre des affaires ñun xam nañ la parce que yàgg nañu am nañ ci yow yaakaar jàpp na ne ci nga nekk danga nga ko mën a bousser pour que mu fa avancé mais dafa am tuuti ay conditions yoo xam ne ci nga mën a sukkandiku orientation pour nga mën a dem benn il faut que ñuy jóge ci li nga xamante ne mooy diplomatie politique dem ci diplomatie économique et sécuritaire parce que tey fekkente ñu tey dem nga ci consulat yi daanaka ñu fa nekk ñëpp dañuy politique te luñu sax sénégalais yi tey bu fekkente loolu am na pour que nga mën a am soxla sénégalais bu ñëw si pour nga mën a am kii loolu day jafe tey bokk na si tey le le le am na consulat yoo xamante ni exemple tey boo demee fi ñuy wax napp napp Napoli mooy euh, maanaam dëkk bi nga xamante ni fa la OTAN nekk OTAN mooy géej gi nga xam moo ëpp sécurité ci àddina bi mais tey amul benn consulat wala boo xamante ni da nga fa def pour xam li xew foofu sax mënul am il faut que ngeen jiital li nga xamante ne mooy Euh, promotion économique et sécuritaire bañ a jiite politique parce que politique nag dafa yàq loolu moom il faut ngeen dugal ko monsieur le ministre des euh, affaires étrangères mun mënu nangu Sénégal extérieur ni ñu sonne ba pare ngeen di augmenter passeport yi di ko jële vingt mille francs di ko yóbbu passeport nga xam moom la ñu Moustapha Ba indil passeport ngay fay pour nga am beneen passeport loolu yaakaar ni jaaruwul monsieur ministre nag boo jëmee ci li nga xamante ni mooy Sénégal extérieur man damaa jàpp ne war ñu am beneen traitement bokkale bi ñu ko def parce que yéen bi nga xamante ne tey sénégalais yi di fi am mois de mars ku ne xam nañ ko mais li nekk bitim réew ñu ngi leen di traité di leen maanaam pour que maanaam di leen traqué pour jàpp leen mais bu fekkee tey doom dañoo soxla yéen pour ñu nekk foofu noonu duñ leen gis duñ leen am jàpp naa loolu tamit war ñu war ko seetaat gis naa aussi tamit nii consulat yu bari tëj nañu d'accord parce que tey mënuloo léegi réew bëgg def ay passeport wala nga bëgg sa réew tax nga yàq loo xam ne àll àll ak sama man d'accord ma ci a wote comme li nga xam ne a milliards lañ dugal ci financement diaspora yi parce am député yoo xam ñu ngi fii